Ousmane Sonko dit que dootul demati. Sonko dit dootul demati devant la presse française mais loolu man bu ci dóor sama caat Ousmane Sonko lan lay wax day wax rouge na nga xëy gis ko mu ne ver na vert laa waxoon Ousmane Sonko waxu fi ni moom mbiru góor jigéen àndu ci dëggalam déet monsieur Diaw monsieur Ousmane Sonko est anti jigéen. nañ ko tuddee mu gën a rafet ay compte boo ñaari tur yi dëgg la da koy day sponsorisé maanaam mouvement yi xeex loolu maanaam nañu mouvement yi sàmm suñu candidat mouvement boobu tudd sàmm suñu candidat Ousmane Sonko xam nga leer na xam nga waxuma tur yi mais xam nga ñan la ok ñooñu du mbiru borom ñaari tur yi la xeex Ousmane Sonko ànd ak ñoom ba mu nekkee maire Ziguinchor kañ la njëkk a recevoir en tant que autorité le champion toute catégorie de la protection des droits des homosexuels moom mi nga xam ne mooy candidat sàmm suñu président suñu candidat ok donc contradiction de taille muy benn n'est-ce pas deuxième contradiction d'ordre moral mu may tax may dellu ci concept li may wax ne la faillite morale de Ousmane Sonko Ousmane Sonko du dafa wax ni moom il est plutôt tendance buy julli day day day affaire u kii euh, l'islamisme radical d'accord on est d'accord sur ça c'est un il est, il est plutôt pro-islamisme radical ana ana ana ibaadu ak dem wuti 4 mai suite boote dañu xamte dëgg ba leen ma de ana ibaadu ak di mbës ak di mbës lu bu fekkee fi dem nga bay wala mbës lu yow 4 mai ya nga yow sa kër gënuta yi gënuta baax gënut a sell ah gënut a jege waa am na ku ko doon wax ni moom waa daaj la gënut a jege waa daaj nañu bàyyi caaxaan nañu bàyyi caaxaan parce que yéen ñi fi toog yéen ñii yéen ñëpp yàlla ma gën a xam la réalité mais na ngeen di bañ man tam je vous invite à ce que mbës bi ngóor si massage bu mu dox seen maayin dox seen xel ba ngeen ragal a àtte dëgg bu leen ragal àtte dëgg parce que yéen vous êtes témoin da fekkee fee yi lii moo fi nekk et vous avez une responsabilité par rapport à vos enfants au futur vous avez future génération yi dinañ leen laaj de comptes maintenant question yi am na na question boo ma wax question yi est-ce que mun nga ma ko rappeler parce que da ma poser quatre sponsoring bi article sur mesure question Ousmane Sonko xam nañu ni ko Ousmane Sonko bu gisee benn média français bu ñëw war ko defal un article élogieux day jël moom pour moom la fin justifie les moyens voilà donc. Euh, next. On passe à, la troisième intervention. Hélène Gaye ñu ngi lay ziar bu baax a baax di rafetlu CODAS bi nga xamante ne jiite nga ko nga xamante ne man personnellement li ma mooy droit des femmes bi may dégg te loolu sama deuxième question di ñëw mais sama première question mooy dama xaw a tiit bi ma la déggee nga ni Ousmane Sonko mën na sax représenter ce que Vladimir Poutine représente pour le monde. moom moom mën na ko représenter est-ce que comme yow xam nga peut-être la place de Vladimir Poutine entre guillemets su fekkente ni daf ko bëgg a jëkkale ak benn Ousmane Sonko boobu nga xamante ni mbirum sexe entre guillemets aussi moom moo ko boole jigéen ji di Adji Raby Sarr est-ce que c'est pas trop sama question ci loolu mooy euh, Françoise Hélène Gaye en personne quand il quand elle parle de Ousmane Sonko c'est comme si personnellement elle porte Euh, ça n'a rien à voir avec Kodas ou bien avec Anira Rissa parce que la personne sans pour autant yenn saa yi sax ñu am des informations requises yi nga xamante ni xëy na parfois yow yaa ngi koy jox si li nga xamante ni bi indil nañu si ay leeral et cetera donc est-ce que personnellement la a une dent contre Ousmane Sonko c'est la première question la deuxième. dama gis nga def euh, violence faite aux femmes violence faite aux femmes le Sénégal face à l'obligation de procès tous les tous les cas l'exemple nga joxe exemple Adji Raby Sarr mais Ndeye Khady dans cette histoire elle est aussi victime mooy borom Sweet Beauty parce qu'elle a perdu beaucoup de choses mais aussi business am yàqu na si bu a baax war a toog tey pour Ndey Xadi te la si benn yoon lan moo tax bi nga xamante ni moom moo koy jeexal nag mooy yan troisième moyen ngeen di jaar pour procès bi am ndax da nga da nga taxaw nga ni nga dina am foo ko teg ak peut-être est-ce que loolu am aussi est tamit dafa am foo war a mën a jaar yow ak waa CODAS Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup pour ces questions. Euh, li moom la mën a njëkk a par rapport euh, à votre première question muy euh, par comparaison voilà muy euh, comparaison boobu nga xam ni euh, maa ngi koy def entre Vladimir Poutine ak Ousmane Sonko euh, nga may laaj ndax c'est pas abusé si c'est pas abusé je di que man personnellement su ma considérer 14, les 14 morts, les qu'il y a eu au mois de mars, à la suite, appelle Ousmane Sonko à descendre dans la rue, à, porter le combat, à sauver la dernière chance du Sénégal que représenterait Ousmane Sonko, je dis que est au Sénégal ce que, la, ce que Poutine est au monde. Parce que jamais de l'histoire du Sénégal, un homme politique n'a appelé à descendre et verse le sang des Sénégalais dans l'histoire du Sénégal suñu gis ku taxaw ne wàcc leen et que mortal combat te mu xam ni ay xale ay ndaw ñoo xam ni seen xel paregul mëtagul ñoom la waxal parce que moom mooy muy tiitaroo ne ndaw yee koy dem mais ndaw yi danga leen war a aar mais doo jël ay ay ndaw nga ne leen wàcc leen mortal combat dans un autre pays du woon gisati naaj bi bu ko defoon Amérique kenn waxatu ko bu ko defoon France wala Allemagne ba nga xam ne xam naa ko kenn wax kon dootul sax a jege fu ñuy waxee ndax kenn du ko gis sax xanaa nga fekk ko prison parce que c'est des pays qui ne veulent pas que les luttes séculaire ci ñu def seeni i maam def ci démocratie benn nit di ko salfaañee ci benn affaire wu mœurs affaire wu géño ndax Donald Trump ay partisans benn nit lañu rey Capitole benn policier ñoom ñëpp a ngi ci kaso tous les leaders tous les leaders Donald Trump la ñuy xool léegi à quel niveau la impliqué wu mais tous ces tout ce qui était impliqué ñu ngi en prison et ça c'est arrivé bien après Ousmane Sonko son appel au mortel combat il emporte 14 morts yi il est l'unique personne l'unique responsable comptable devant Dieu et devant les hommes si le tribunal des hommes le laisse vaquer à ses occupations le tribunal de Dieu le sanctionnera Parce qu'on a dit dans la Bible, vous êtes le gardien de votre frère, Caïn et Abel. Yalla dafa ko ne où est ton frère Où est ton frère Et Dieu dira à Ousmane Sonko où sont tes frères 14 morts yi nga rey pour lan te dina mës am moom xam na ko léegi bu ko neexee mu ŋàbbu micro yi fu mu toll di ko bëgg rejeter sur quelqu'un d'autre pour pouvoir dormir la nuit ça ne changera pas la réalité des faits. Donc c'est pas abusé. moyens yi mu am la déployer et ces moyens ne sont pas comparables aux moyens de Poutine parce que Poutine dafa rëy parce que noonu la Russie toll mais Poutine et Sonko six ak neuf kiif kiif des gens qui sont dans un délire autocratique un, une, une, qui ont un problème, c'est la psychopathie. C'est des gens qui ont une maladie de la perception de ñoom seen doole fu mu toll fan la ñu war yem ak fan la ñu warut a a dem parce qu'ils sont complètement en déphasage avec la réalité te loolu sa se soigne nga dem wuti ay conseillers pour que ces décisions ces discours ne continuent pas à être des insultes cette République et à ceux qui le gèrent. Parce qu'il veut demain gérer cette République. Et il, je pense qu'il espère, il aimerait bien que vous n'êtes que président, qu'il ait le respect de son peuple et qu'on qu ne, qu ne piétine pas chaque jour son honneur et sa dignité. Actuellement, il est en train de nous montrer la voie. Si on le traite comme il traite le président Macky Sall, vous pensez qu'il serait content Lui qui a seuls les, les commissaires, juste parce qu'on veut dresser un périmètre de sécurité pour lui. Il s'est retourné, il a harcelé une commissaire, l'a vu. je ne pas crier dans le micro. Écoutez, vous êtes journaliste, vous le connaissez mieux que Maintenant, vous dites que j'attaque beaucoup le président Ousmane Sonko, le président Ngoursi Massage, le président Serine Pastef. dama nekk ku teel a xam mooy kan balaa affaire Adji Sarr ñëw fekk man li ñu def Adji Sarr def nañ ko pendant deux ans yéen ñëpp ñu nekk ci gis ngeen ni que dafa am ay arme yu toog di ma saaga di saaga samay doom di saaga samay waaju di saaga samay militant à longueur de journée ba ma mujjee dër kii safatuma léegi nag xam naa ne lan lay def ci doomu aadama ba ma ko gisee ñu koy def xale bi man ma jël jël place u xale bi xeexal ko parce que avec le temps j'ai moi-même des militants des militants unis et des followers qui croient en moi qui savent que amul lu may ragal ragal ma Ousmane Sonko li jëm ci moom Ousmane Sonko lu mu teg xam naa lan la xam naa na lay xeexeek moom ragaluma saaga yi parce que sénégalais saaga yi la ñu ragal dafa xooxatal journaliste yu bëri ba ñemeetuñu wax Dieu a fait que damaa mujj dër kiis xam nga lu dër kiis du ni dama koy attaqué de damay xeexal ña muy attaqué y compris Adji parce que man sama wàllu wees na ñoom xam nañu ne mënuluñu ma dara ña ma xam ña nga xam ne nag ñoom lay xoxatal pour influencer nit ñi di ko ragal man ñooñu laa taxaw di dooleel ñu am fit ñu garanti ñoom seen droit de réponse seen droit à seen droit à dire que nous ne voulons pas de toi Ousmane Sonko et nous avons le droit de le dire il n'est pas dit que aujourd'hui sénégalais amul droit wax ni tànn moom Ousmane Sonko ànduma ak Ousmane Sonko moo bëgg a nekk crime ci biir réew mi Ousmane Sonko mooy kan président de la République a l'armée la police la toutes les forces dañ koy wax ni bëgguñu moom mu ne moom bu waxee jigéen mais waxuñu ni dañuy couvrir crime mu jigéen on défend les femmes mais nous ne couvrons pas les crimes des femmes Ndeye Khady a fait du proxénétisme Ndeye Khady avait un salon où elle commercialisait elle vendait du sexe je le dis Ndeye Khady avait un salon où elle faisait ce qu'on appelle trafficking, human trafficking. Aujourd'hui, si on veut se faire respecter, on veut faire respecter cette République, après Ousmane Sonko, on doit poursuivre les rallyes. Qu'elle réponde devant la justice. Pour préserver les femmes sénégalaises, il faudra peut-être attraire certaines femmes sénégalaises devant la justice. il n'est pas dit que quand une femme fait un crime, nous allons accompagner cette femme-là pour, pour, parce que c'est une femme et on va l'aider à faire obstruction à la justice. Parce que Eden aujourd'hui serait faire obstruction à la justice sénégalaise et nous ne sommes pas dans ces eaux-là. Elle va répondre devant la justice. Au-delà de cela, côté nous sommes de tout cœur avec elle pour qu'elle aille mais qu'elle aille devant la justice sénégalaise répondre de ses crimes. Euh, quelles voies et moyens pour le procès euh, Si je répondais à cette question, je ferais du Ousmane Sonko. C'est à la justice de trouver les voies et moyens. Nous sommes là juste pour réclamer justice, faire notre devoir citoyen. la justice se charge de trouver les voies et moyens pour faire cela. Et nous sommes soumis à la justice de ce pays. À leurs décisions, la justice est souveraine. Nous sommes de simples citoyens, des patriotes et qui aiment tellement le Sénégal que nous ne sommes pas capables de sous-estimer notre justice ou nos juges. Merci beaucoup, madame. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci.